tey nag euh, jaar nañu euh, PNDL ñu waxtaan ak directeur yooyu ñëwuñu ay visite de courtoisie mais day ñëw toog liggéey ak ñoom liggéey nañ fa ba pare ñëwaat également fii si ANAT mais li am solo li may wax mooy que comme président de la république nee na nañu fexe ba développement bi ñuy wax ay émergence bi ñuy wax na commencé si communes yi collectivités territoriales yi donc yooyu nag ay bras yu xam ne yoo am solo mooy PNDL ay ANAT suba dinañ gis ñeneen

mun naa wax ne pratiquement amu fi dans la sous-région waaye loolu nag bettuma parce que xam naa yeneen pays les pays développés ñoom avant ñuy def dara si aménagement du territoire la ñu war a basé et Sénégal aussi noonu la ko gisee et donc loolu moo tax na donc Djigo moom ak équipe am ñu ngi fii di aménager di prévoir soo gisee ñuy defar benn route ñu war a fay yu bëri c'est que day fekk rek en tout cas ji lu ñu woon temps te ñoom également président jox na leen lu am solo

Va installer ay projet ay projet au niveau de la base pour que population bi donc vraiment gis njëriñ bi que développement bi mooy émergence bi sentir ko foofu si suñu commune yi donc moi, li ñu wax développement à la base. dinañ jàppale ANAT suñu paree ñoom ANAT ADM ak PNDL ak yeneen structures yi donc suñu demee ba pare liggéey boo xam ne prospection la ba gis seen mission bi gis également mission de ñu ma jox man ak priorité bi ñu installé dinañu seet fan la ñu appuyer pour que structures yooyu fonctionner parce qu'en en réalité structures yi su dans de bonnes conditions Sénégal moo si gagné communes yi ñoo gagné et président de la République mooy atteindre objectif am si développement des territoires donc loolu la moo tax que ANAT ak ñeneen ñoom ñëpp dinañ leen accompagner di wax ne également laaj nga ma ko ay les fonds de dotation di wax ne que président euh, joxe na ndigal ministère ministère de l'enseignement ministère des finances commencé woon sax def ay avance yàgg na du tay la commencé depuis hier mën nañu wax fonds de dotation donc libéré nañu